président Macky Sall Sall ngaari lam tooro buuru géde président ñun ñii ñoo la faral nga nekk président de la république nga laaj ñu deuxième mandat ñu jox la ko am yaakaar ci yow ah saaku soble sept mille léegi cinquante mille lay jar ah président boo yore sa njaboot dañ leen di gëstu waay troisième mandat bi bëgg xeeñ ah ñu xam ah ceeb ak diwlin daal kenn du ko laal léegi ñu néew di doole yi fuñ jëm ndugg mi nag nga ne kenn du ko wax ah dimbali waaye sonn